mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM dalee nag jàmm ci seen émission démb ak tey démb tey nag euh, dafa am mbégte mu rëy tey euh, dalal jigéen ju mag jigéen joo xam ni euh, xeexal na Sénégal xeex bu am solo te waxtaan bi dinañu ci gindi muy suñu maam suñu yaay Adja Awa gay nekk présidente des femmes porteuses de pancarte doon ànd ak ñu ci mel ni maître Mbaye Jacques Diop ak ñooñu nga xam ni xeexu indépendance bi bay nañu ci seen waar ba mu mat sëkk yaay booy ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci dalal bi vraiment di la itam sargal ci xeex bi nga xam ne xeexal nga ko Sénégal xeexal nga ko ndaw yi démb yi ak ndaw yi tey yi ndax xëy na bu ñu toogee fii ba mën a wax moom suñu bopp bokk nga yow ci ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey liggéey boobu bisimila ci démb ak tey. waaw bisimilahi rahmaani cére jërëjëf maa ngi kontaan ci ñëw bii nga ñëw di ma seet si ndax ñëw bu ma neex la maa ngi sant yàlla ak yonent bi ma toogee tey ba di ko mën a nettali ndax am na ñu bari ñu ma ko bokkuloon te nekkatuñu fi léegi ba ñuy xeex xeexuñoon suñu intérêt la ñu xeexoon pour le peuple ndax ñun jigéen ñi dañu tegoon foo xam ne ñun bëgguñu nanguwuñ fa woon a tegu te bëgguwuñu fa woon a tegu di leen wan ne li góor ñi bëgg lool la ñu bëgg ñu àndoon nag suñuy jëkkër yi la àndaloon dugg ci xeex bi biñ ci duggee nag dañuy defoon suñu mouvement bopp. mouvement bi s'appelle l'union des femmes du Sénégal mais avant l'union des femmes du Sénégal sax ñun dañuy jógoon a combattre contre le colonialisme bi nga xam ne daf ñu nottoon amatuñu indépendance suñu réew mënatuñoo defal dara loolu loolu dañoo coloniser woon ba mu metti léegi nag ñun jigéen ñi nag ñu ne nañ ko dindi nañ ko xeex ñu daal def suñu commune ñu daal def suñu euh, rassemblement tuddee ko l'union des femmes du Sénégal l'union des femmes du Sénégal y avait beaucoup de partis euh, y avait beaucoup de femmes yoo xam ne ci bi la ñu bokkoon mais ça ne signifie rien ñun ñëpp dañu xam ne ñu ñëpp jigéen lañu ñu maase la yëpp muy rolu jigéen y avait Thiombé Samba moo doon sunu présidente Jeanne Martin Cissé était la était la présidente Thiombé était la vice-présidente Maguette Diop moo yoroon organisation man j'avais la presse. ak euh, la femme euh, Falil ay Aïda Sarr. Mm. ñun ñii ñoo formé woon l'union des femmes du Sénégal bañ ñu ko formé ba pare nag ñu boole toutes les femmes toutes les parties confondues. Mm. ay sénégal rek ñoo ci nekkoon. ñu am sunu local maison des jeunes di nekk fii ci fii kii nekk tey mm. Seydou Nourou Tall foofu la ñu defoon sunu local. fa lañ daan réunir fa lañ daan defee sunu yëpp temps boobu nag metti woon na lool si ñun ndax ma Mamadou Dia ci boppam moo ñu sonaloon hmm. waaw fu ñu defee réunion un deux trois rek Mamadou Dia boole ñoo ay policier ñu yóbbu ñu quatrième wala ñu yóbbu ñu central. boobu am nañu indépendance ba pare. déedéet. ma ku ñu indépendance de. d'accord ban année la woon li ngay wax. c'était dans les années dans les années cinquante huit cinquante cinquante huit cinquante six. d'accord yàgg na. waaw mais boobu ñu ngi dox pour jëm ci indépendance. kay booba temps nag ñu ñëpp indépendance la ñu bëggoon. bi nga xam ne réunir nañ nag ba nga xam ne ñu ngi préparer l'arrivée du général de Gaulle. Hmm. dañu ne le général ñu ne léegi waxtaan bi ñu ngi koy defee ak Cotonou. bi ñu ngi koy defee ak Cotonou les hommes préparer seen préparation pare ñun tam ñu envoyé. Rose Bass. Adja Rose Bass moo ñu représenté woon ak Cotonou. d'accord bi muy laata dem Cotonou nag dañu organisé woon suñu kermesse ndax amuñu woon dara. Hmm. dañu organisé suñu ay ay fonds dañu organisé woon suñu kermesse ci stade Iba Mar bi hmm. lañ fa récolté yëpp defar ko ba mu baax passé la ci Rose Bass mu dem. Cotonou ba mu demee mu ñëwee jox ñu compte rendu pour la du général de Gaulle. Hmm. en ce moment là nag ñun tam ñu préparé arrivé bi parce que loolu la ñu yàkkamti woon parce que on était fatigué. lu ko jiitu yéen a ngi doon def ay activité aussi. waaw ñu ngi doon def activité yoo xam ne avant l'arrivée du général de Gaulle. dañu doon def activités yoo xam ne du baar fakal la parce que ñun dañ daan organiser suñu bopp di defal suñu journaux. di jaay ay journal man mii di wax ak yow daan tax takk ak ñoom Maguette Diop Cumbe Samba. Mhm. dañ daan taxawu ba dëgër. taxaw ci feu rouge yi. di jaay journaux. yéen a doon édité journal bi. ñun ñoo ko doon édité. nu mu tuddoon. les femmes du Sénégal. yéen a ko doon bind. ñoo ko doon bind. Diop eh, waa Ablaye Diop imprimeur. moo ñu ko daan imprimer. jëkkër yi ànd quotidien la woon wala hebdomadaire. hebdomadaire la jëkkër yi ah jëkkër yi ah, jëkkër yi Anta Diop sa femme Anta moomu ci ñun la bokkoon léegi bu ñu jaayee sunu journal recette yi ñu ciy am. ci lañ daan. ñu def suñu meeting moom lañu daan organiser di louer ay sonorisation ak di louer de cinéma yi ñuy daan jox mhm. ñu di ci def suñu réunion mais bu defee meeting ba pare dañuy jékki-jékki des auto police bi taxaw ci buntu bi rek yóbbu ñu ah ñun jigéen ñi hmm. su ko defee lan lañ leen daan reproché on bavarde beaucoup on parle toujours de l'indépendance nous sommes des communistes yooyu daal la ñu doon wax hmm. c'était au temps du yi parce que la plupart des femmes ñun ñu bari ñu ci bokkoon ci pays yi la ñu nekkoon. le parti de Majmout Diop. léegi ñu def ñu des communistes. a ah, en tout cas ñun ci la ñu nekkoon ànd ak Majmout Diop di bëri. Ah. c' était pour avoir notre indépendance. Ah. ndax jigéen ñi dañu sonnoon. boo amoo droit ak accéder à l'hôpital principal temps boobu. ah oui déedéet hôpital principal c' pour les français. hôpital indigène. bii ñu wax la le Dantec ah, Dantec c'était s'appelait hôpital indigène c'était pour nous les indigènes yaa nga dafa am discrimination la am entre européens yeeg sénégalais ñun nag ñi du ko xeex en tant que jigéen ñu leen doon xañ yu bari jigéen nag ñu duñu xeex yu ñu duñu kii yu bari suñu jëkkër yi première euh, première euh, euh, première mai bu ñu ko daan feete dañuy ànd ak ñoom di défilé ba bourse du travail te tàmboo bu jigéen boo ne kaay dem doo jóg xamuñu lu ñu tudde woon ay dof <laughs> waaw ndax yéen li ngeen def ni yombul woon ci jamono ah, jooju. ay dof la ñu tudde woon parce que temps boobu ñun Dumbe Njaay la ñu fekkoon ci temps wu Senghor ak Mamadou Dia Dumbe Njaay lañ daan yàppanteel moom lañ daan waxal yaa ngi dégg au temps de fédération du Mali man dem naa ba seeti Tidjane Traoré xam nga moo yoon information. Mm. man j'avais la presse. léegi Tidjane Traoré Traoré fekk ba mettre ma en communication avec les femmes maliennes. Mm. léegi femme maliennes ñi di ma envoyé les journaux. man tam mu leen envoyé sa notre journaux. d'accord Union soviétique dañu daan envoyé seen journaux. les femmes françaises Jeanne Mar euh, Jeannette c'était la femme à ma à Jacques Diculo. Mm-hmm. daf ñu daan ma daan envoyé ay journaux. journaux yooyu nag lañ daan boole suñu journaux boole ko yëpp di ko jaay. pour comprendre. li nga xam ne jigéen ñi moom la ñu bëgg. Mm-hmm. mais li ñu bëgg yëpp fond bu ne dem nañ fa mais mënu aboutir à rien. Mm. ah jusqu'à présent ñu ngi nii toog. te jigéen ju fi nekk député tey toujours ma wax ko jigéen ju fi nekk député tey. Mm-hmm. mbaa nga nekk ministre. Mm-hmm. ak loo mën a doon rek. Mm-hmm. ñun ñi ñoo xeex. ñun ñi ñoo xeex ba xaaxaam ba jam ñu suñuy tànk lu daj nañ ko. Mm-hmm. amul commissariat bu ñu tëddul. Cumbe Samba la ñu njëkk a tëj en prison en tant que femme. ñun dañ daan fanaan ci biir poste de police deux jours trois jours ñu bàyyi ñuy def mais pour tëj Cumbe la ñu njëkk a tëj ci jigéen ñi te loolu metti woon na. d'accord waaw d'accord bi amoon avant indépendance euh, effectivement moom moo leen ci poussé ba tax ngeen ne daal jot nañu jóg xeex lan ngeen dund loo xam ne da ngeen ne lii moom ëpp na i faut ñun ñu jóg lan moom motiver seen xeex bi ngeen bi ngeen engagé woon motiver sunu xeex bi moo di sunu doom yi sunu doom yi bu ñu demee école du ñu ñëw bu ñu ñëwee du ñu sant que la Marseillaise l'hymne national de la France loolu lañ daan loolu lañ leen jàngaloon ay René Caillé ak Vérinthèse Soskorig la xam ak Victor Hugo yooyu ci nekkoon amuñu Lat Joor amuñu eh, na mu tuuti Cheikh Ahmadou Bamba ak eh, maam Cheikh de Fall ak Maodo yëpp amuñu dara amu ci ñun daal dañu coloniser woon ba nga xam ne dafa metti suñu soldu jëkkër yi itam baaxul woon ñun loolu ñoo revendiquer pour ñu moom suñu bopp ñu di ko xeex nag ba léegi màgget nañu waaye ba tey mu ngi ci sunu waaw waaw. général de Gaulle bi nan ngeen ko préparé. arrivée général de bi ba ñu yëgee ne général de mu ngi ñëw comme nii ma la ko waxee dañu waxtaan ak Rose Bass bu jox ñu compte bi ba pare. Mm-hmm. ba mu joxee compte bi ba pare ñun tam ñu préparé sunu discours ñu préparé ni ñu war ak accueillir général de ak yëpp léegi ñu def ay pancarte. bu ko jox ko benn benn kii la ñu bind. yóbbu ko jox ko Ablaye Diop. imprimerie imprimerie mu defaral ñu imprimer ñu suñu pancarte. nous voulons l'indépendance immédiate. nous les femmes du Sénégal. yaa ngi dégg yaa dem place Protet. mooy place de l'indépendance tey. général de bi mu ñëw fii c'est un ñu dem ñun ñëpp a taxaw góor ñi gaa ñëw nañu waaye ñun jigéen ñu ñeetoon devant. yéen a ëpp. ñoo leen ah, leen gën a jege daal. gën caa sonn itam. kon teyel ngeen a jóg. bu yàgg sax man dama ne man presque ba ma amee lan ba ma amee presque ba ma amee 17 ans 15 ans laa dugg ci politique ba léegi maa ngi toog. ah oui. ci laa marié lu la si dugaloon. sama jëkkër moom si dugaloon. d'accord parce que il était membre du PRA Sénégal. ma nekk ak moom ñoo Ablaye Matar Mbow ak eh, Iba Der ñoom ñëpp defal naa leen ñi am réunion nocturne ci sama kër ah waaw yàgg na de lu de l'UDS Ablaye Dieye Kabri ba Thierno Ablaye Ly waaw para Sénégal para ñoo ñëpp ñoo sama jëkkër ñoo bokkoon ñoo daan ànd ñoo bokkoon ñoo formé seen bureau bopp moom moo nekk kan Ablaye Cissé waaw. d'accord léegi jamono bi ngeen di porté porter pancarte góor ñi ban cër lañ leen joxoon est-ce que yaataloon nañ leen ndax tey dañuy wax peut ne góor ñi dañuy suul jigéen ñi ci politique bi nangam nangam yaataluñ leen est-ce que yéen amoon ngeen problème boobu. amoon nañu problème boobu parce que góor ñi dañu jekki jekk ñoom lu ñëw rek seen bopp la ñu wone. léegi nag Mbaye Jacques Diop ci boppam. Mm. moo tax ñu xam ñu parce que Mbaye Mbaye Jacques Diop dafa ñëw. daay ne il faut que ñu jóg bu leen toog seen liggéey bu leen ko bàyyi toog jóg leen Mbaye Jacques Diop moo yor bâton de pèlerin ñun ñëpp ku ci ne mu génn la Awa Dia Thiam euh, Awa Cumbee Samba sax Awa Dia euh, comment dirais-je encore euh, Awa Dia Thiam Seynabou man Awa Rose Bass ñun ñëpp ñi fi desoon ñun la woowoon ñun ñëpp ñu daal di ñëw réunir def suñu yëpp ak Maguette jóob Maguette Diop tey bu fi toogoon tey. Mm. moom mooy doon président tey parce que moo ma mag. waaye yaramam neexul du gis. Mm. mag la daal. Mm-hmm. man mag laa waaye moom ma mag. léegi nag ma jël à sa place ndax ñun ñaar rek. Mm. ñoo fi des comme des anciennes. yàlla ngeen fi gën a yàgg jamono boobu ngeen doon def politique bi porter pancarte def ay réunion nocturne naka ngeen doon mun a gérer seen seen i kër. sunu waaw seen i foyer loolu moom bëgg nañ ko xam parce que jamono boobu yombul woon. déedéet parce que temps tey jafe na mais boobu la gën a métti. waaw temps boobu daf ñu boole sax ñu njaboot. waaw mais comme que sunu jëkkër yi ñoo ñoom ñoo bokk doctrine politique ñoo bokk. Euh, hmm. bëgg-bëgg comprendre nañ ko ak sunuy parents. léegi bu fekkee dañoo am réunion daa am réunion maison de jeune mhm. bu ñu amee réunion l'après midi da ngay taal sa añ taal sa reer def sa yëpp dem réunion waxtu boo ñëwee nga dekkali sa sa reer defar bu manger en famille waaw. il arrivé ngeen nekk ci réunion yi ba guddi guddi. waaw taar. Ah taar dañ daan def ay miti itam daan nañu def ay. Euh, Euh, comme le 8 mars 8 mars yii ñuy célébrer léegi. Ah. ñun dañ daan def le 8 mars bu jot dañ daan réunir jënd jënd ay omo ay denrée ay yooyu yëpp mm-hmm. ay nécessité femmes yoo xam ne jigéen dañ ko soxla. Mm-hmm. ñu yóbbu ko dans les prisons. waaw bu ñu jógee ci prison yi di des ñu yóbbu ko. prison wu jigéen ñi prison jigéen ñi bu jógee ñu yóbbu ko euh, fële waaw fex ah, xale yi mu tuddati jardin d'enfants yu bii nekk ci sœur yi ci wetu Wakaam. waaw waaw. yooyu yëpp daan nañ ko def waaw. après itam am na benn système bu ñu daan def kooku c'était pour l'éducation des femmes ndax temps boobu dafa amoon jigéen ñoo xam ne daal comme nii daal fisuñu comme nii ñu fesee léegi mm-hmm. mais xam nañu seen vie baaxul. ñun jigéen ñi suñu bureau dañ daan tànn man maa ngi nekkoon faas a Fall Diagne moo nekkoon Fann Sumbe sàmba moom itam moo nekk Fann mais xam nga Fann c'est divisé en deux léegi bu ñu leena gël tappe voilà cumbe Fann léegi dañaa dem suñ jógee seet jigéen ñi nga xam ne daal temps boobu jigéen ñi dañ daan def yu ay yu kenn xam kenn mënu ko wax daal. Mm-hmm. léegi su ko defee ñu seet jigéen ñi ba xam ñoom fu ñu nekk man fi ma nekkoon man. à face jigéen ñi nga xam ne dañ daan def prostitution yooyu dama yàlla mm-hmm. baal. Mm-hmm. am na benn géwél buñ ma boole woon ku ñu wax Maada Penda Seck. kooku moo jàngal Duur Njaay Roos Sabar. kooku su moo ñu daan tëggal. kooku moo mettre en relation ak femme yooyu. su ko defee man ma dem. waxtaan ak ñoom dama ba ñu d'accord ak ñoom su ko defee ma ñëw jënd sama livre syllabaire yi. ñëw fa ak benn tableau. nekk ak ñoom foofu. les femmes yoo xam ne ñu bari ñeme ñun leen woon sax. Mm-hmm. mais su ma duggee jàngal leen wax leen ce que ce que c'est que la femme le devoir de la femme di jigéen war a def le rôle de la femme ak ni ngeen mel seen juddu di leen naab daal. Mm-hmm. mais am na ñu ci bari ñoo xam ne. retiré nañu foofu ba am na ci koo xam ne doonoon sëy kilifa goo xam ne du ma ko tudd mukk mhm. foofu la ne woon mais dafa sëy ak moom tubaarkàlla ba jaboon ñu ba ni mu génnee àddina te grâce à te loolu da ko doon def nii rek ngir yàlla ngir yàlla soxlawuñu dara pour jigéen ñi évoluer mhm. set mhm. nekk ñu baax loolu lañ ci sox jógu loolu waaw boobu ñen amul kenn aussi ku leen doon jàppale yéen a doon dem selon seen ay moyen ñun kese sunu moyen kese sunu journée yi ñuy jaay jeex na tàkk amuñu leneen amuñu woon leneen luñ ciy def. d'accord liggéey boobu ngeen doon def démb bu ngeen xoolee tey fi jamono toll ak jigéen am ngeen satisfaction. satisfaction anewu ci anam parce que ñun dañoo liggéey liggéey liggéey liggéey ba sonn abouture de arrière. mais fi jigéen toll gisoo ne jigéen évolué na. Ah, ci jamono évolué na tuuti parce que ñun lañ doon xeex. Hmm. am na léegi parce que ñun ñu ngi toog di wax parité mais ñi ñoo jëkk demandé la parité. Hmm. ñun ñi ñu jëkk demandé la parité kere bu ñu defee réunion fii cinéma star bii ñu dem ñu wax ne ko nous voulons la parité entre l'homme et la femme o sein du travail yaa ngi dégg léegi ba ko Mamadou Dia déggee dafa ñu convoqué hmm. waaw dafa ñëw convoqué ñu ñu daal di ñëw ne ne membre du bureau laa soxla ñu dem booba euh, euh, kii la femme à euh, Falil Diop Aïda Sarr hmm. moo yore oto Aïda Sarr man Maguette Diop Cumbe ñu doon kat ba ñu demee taxaw woo mu ngi këram ji fii ci Médina mm. ci bureau bi foofu la ñu convoqué mm. ba ñu demee mu installé ñu bañ togg ba pare bu daay ne ah c'est vous de des femmes du Sénégal ñu ne ko koy mu ne ah yéen toujours ay wax fu ma dégg rek ñu ne vous chantez la vous dites toute la parité parité parité même même chant même mel ni da ngeen di chanter parité parité ñu ne ko way monsieur le président mu ne ah de toutes les façons moom mooy président du conseil. wala nekk Mamadou Dia def naa boobu lay président wala premier ministre du woon hmm. premier ministre. premier ministre que defe naa de. mu ne de toute façon moo déggatee ngeen wax la parité rek. Hmm. je vous fous en prison. ah bon. oui Mamadou Dia. nii la leen ko waxee. nii lañ ko waxee. ah ñu tam ñu daal di en tant que jigéen dootu am fit. Hmm. ñu ñu ne a ah, kon nag comme que noonu la d' accord. ngeen noppi. ñu noppi mais nopp bi terewul toujours ñu ngi koy def ci suñu journaux yi. toujours waxtu ñu kii suñu jeune foog ñi sànni si la moo parité. <laughs> kon waxam ja dellu woo leen ginnaaw. déedéet delluwuñu gannaaw ñun nag fi nga ñu gis ni ragaluñu woon kenn nag. Hmm. déedéet ragaluñu woon kenn ay jo président ay jo boobu juddoogu leen. Hmm. bi mu jëkkee de première visitam am à Dakar ñu ngi ko recevoir devant la maison de Mamadou Dia fi mu dëkkoon attileen hmm. temps boobu dañuy def ay. amul turi turi bi ñuy def yi ñu poosé nii ay estrade estrade la nekkoon ñu def lu mel ni ay bariku ci suuf defar stade militaire yeek daan defar su ko defee élu yi nag nekk ci ko invité les ne ci kaw léegi bi ñu defaree ba pare ñu tam ñu ne dañuy dem dañuy dem si meeting ba ah ñu dem booba kii ko na war a recevoir moom Rijaa ko da war a recevoir boobu mooy première visite am à Dakar léegi ba demee ñu dem jour boobu dañoon jaay sunu journal léegi ñëw ba foofu ñu nañ seetaan kii ne am ku ci ne ay eh, bu ñu taxee fee fii police yi dañ ñuy xàmmee ndax ñun dañu ràññee woon <laughs> police yi dañuy xàmmee man ne man de dinaa dem ñu daal di dem nag ñu dem taxaw gis nga ay jo fi mu toog nii mm-hmm. ma ne xale yi man dinaa dem ba jaay ay jo sama journal si ah ma xam fooy aw Il y avait un, il y avait un militant tout de Fatamba Keita, mm-hmm. c'est un Malien. Mm-hmm. ne ma awa oh, faut pas y ma ne ko ah, naa essayé rek ma laay dugg ci biir kii boobu gisee na temps boobu dama tuuti. waaw <laughs> maa ngi takk ba dëgg yor sama journal yi nii. déedéet ah, may rampe nag ci biir di rampe ci biir estrade bi di rampe di rampe di rampe ba yéeg ci kaw. naka laa yéeg ci kaw ba janoog moom. Mm-hmm. ma ne ay monsieur Aizo ne wey ma ne ko voici notre journal. hee foofu lañ ma fekk. Hmm? lañ ma fekk tungoom ma. policier yi. ba ab ah, <laughs> tungoom ma xamatuma fu journal yi wadd ka yëpp lay naaw. <laughs> ñu yenn la. ñu yenn ma dugal ci oto wa yóbbu. moom jotul jënd ci journal bi jot na jox naa ko ko kay. jox ah, naa ko ko mais man xaw ma yor na xaw ma yor ndax talatuma ko. ñi jël ma may dem quatrième. fanaan ba bës set waaw euh, euh, kii bi ñëw Euh, commissaire bi ah yow yaay jigéen ju dëgër bopp ah yéen dem ci ah le président est venu en visite léegi nga dëkk wax li bëgg a xew ci sunu réew ak yooyu ma ne ko man waxuma ko li xew ci sunu réew de dama yegg sama journal je suis libre de jaay n'importe qui. Mm-hmm. je suis libre de jaay n'importe qui mu ne ma ah oui ma ne ko oui mu ne bon on va voir ma ne ko on va voir ma daal di toog ma toog toog toog toog ba vers les coups de 6 heures 7 heures mu ne ma tu peux disposer ma ne ko merci daal di ñibbisi. Mm-hmm. ñun amul lu ñu ragal sa waa kër nuñ ko dundee. jamono yooyu arrestation sama yaay ngi dund. sama yaay waxtu woo ma see dem réunion mu ma duma dellu si waxtu woo see dem réunion ba bi may dem au Mali parce que ñaamoon o festival ba am Mali di ñoo léegi ñu festival de la jeunesse léegi man la ñu désigné woon ma dem Mali. ma dem Mali bi may dem Mali ba may boot sama doom bu góor dafa gaañu sax bu waaw léegi bi ma demee sama yaay di jooy ci saxaar gi jooy saxaar gi ba ñibbisi yëpp muy jooy. Mm-hmm. jusqu'à présent temps boobu su réunion amee rek danaa dootuma dellu si. Mm-hmm. waxee sama jëkkër bii ma doon seet te mu ma si mm-hmm. politique. moom la daan loolu dal sama doomu yow la ndax yaa nga duggal si politique bi mu ngoog. d'accord booba naa nag ñun duñu saaga président. duñu wax wax yu bon. yii xay def duñu ko def. ñu laa dinañ am sunu revendication daal. revendiquer bu ñu xëyee la matin bu ñu xëyee fajar bala nit ña yeewu dinañ fekk ñi affiche ndakaaru gi yëpp ay affiche fajar ngeen daan jug. fajar lañ wala ci guddi daan def guddi ay 2 heures de boobu wuyu yi amul. Hmm. ay 2 heures du matin 3 heures du matin euh, kii mi euh, Léna Fall Diagne ñi hmm. ñooy ànd ak Fatou Soumaré bu Plateau ñoo ne ànd defal suñu poti laax suñu poti gom. Hmm. affiche mbedd yëpp. da nga yeewu rek gis affiche yi ci mbedd mi waaw nan yooyu lañ daan def mhm. keroog ca place Protet bi De Gaulle ne vous voulez l'indépendance prenez-la nan ngeen réagir kontaan tëpp yoo ko fecc keroog dañoo kontaan tëpp yoo ko fecc te temps euh, jour boobu maa ngi dox tout le monde tout était porteur parce que place Protet dafa feesoon del ay jaaykati boobu tam jaaykati ndox yaa ngi fi mhm. tukuloo yi daan jaay ndox. ñëpp tukuloo di naari ñëpp fees nañ place place Protet. que nag ni nit ñi bare. Mhm. y de des de pancarte. Mhm. et que nous nous moo tax ñu tuddee ñu les porteurs de pancarte. mais y avait le monde y avait le Sénégal. ñëpp ñëpp léegi après bi loolu passé naka ngeen doxalee que seen principal revendication mooy indépendance de Gaulle mhm. mi représenté woon France mi ñu nootoon nee mun ngeen ko jël mhm. après ban étape moo ci toppoon ci yéen jigéen ñi ah étape bi ci toppoon moo di euh, comme que am nañ suñu indépendance ba pare ah ñu tam ñu jéem a seet naka lañ ci war a évoluer naka la ñu ci war a dugalee naka lañ ci war a jàppee mais yooyu yëpp ah ñu gisuñu ko de mhm. gisuñu ko ñun ñi nga xam daal ñoo xeexoon faale wuñ ñu toppatoo wuñ ñu xamuñu ñu Marème Faye Sall day bii def na benn geste boo xam ne du ma ko fàtte te ne dinaa la ko wax mm. parce que président yi fi jaar yëpp ba ñu xeex ñu ngi fi. Mm. yaa ngi dégg. waaw mais amu ci kenn ku ñu yëg ni mu Marème fay Sall yëg ni mu ñu yëgee bokk. Mm. jigéen ñi. man surtout man man man man ma kenn mais man yaa ngi dégg. may ma ñaar dërëm nag defaluma dara mais ba sama doom gaañoo sama doom bii ma lay wax te ñu wax ko ko yónni na Penda Mbow ba mu ñëw ba jaale si ma geste boobu def na ko maa ngi ko ci remercier en tant que président euh, en tant que madame la présidente maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant mais à part ça parce que billet màkk yi ñun mosuñu ci am kër yi ñuy daggal nit ñi mosuñ gis nga fi ma dëkk mosuñu fee mosuñu cee am. amuñu benn faveur boo xam ne mën nañ cee savourer ne lii ci sunu liggéey politique la jóge amul. ndax li ngeen nekkoon ci opposition bi fii président Senghor ñëwee après indépendance moo tax. mais am na femmes yi nekkoon opposition ñu ngi leen satisfaire. waaw seen nekk nag Senghor nu mu demee woon. suñu nekkoon Senghor Senghor. bi ñu amee indépendance ba pare. bi nga Senghor Senghor mosula joteeg ñun dara franchement parler. Senghor il était bien avec nous ñun Mamadou Dia rek moo ñu la jëloon. Mm-hmm. loolu fan la teg woon. ah xaw ma fu mu ko base bu mu ko jëlee de. waaye boo ne nii rek mu ne les femmes de lu ñoo des femmes du Sénégal les femmes du PAI yi loolu rek nga daan dégg moom daal mosula d'accord ñun xaw ma daal xaw lu mu ko jëlee waaw. bi après Senghor bi indépendance ñëwee amu leen benn évolution daal boo xam ne yëg ngeen ko. gisuñu ko de gisuñu ko de ñu daal dañoo fàtte tout à fait. Ablaye Wade tamit ñëw fàttale. Ablaye Wade Ablaye Wade sax. amoon na kii ci ñun amoon na reconnaissance ci ñun tuuti ndax bi ñu koy laat bëgg a wàcce boo préparé woon na ba ne daf ñuy am daf ñu yóbbu màkka foofu yàlla def kii yam bi am gis nga sunu kii yële sax moo ñu ko décerné woon médaille bi médaille bi ñu ñu ko joxe woon à Saint-Louis waaw ci temps Bajak Diop après à loolu amul kenn si yéen koo xam ne dugal nañu ko ci fonction wala mu am te ñi ci bokkoon tam seen njàng xëy na mayoon na ñu accédé ci yenn postes yi waaw Jeanne euh, Jeannette Vermès Jeanne Martin Cissé mm. moom moo nekkoon na ONU sax yaa ngi dégg mm. euh, Aïda Aïda Sarr sage-femme la woon Adja Rose Bass Rose nga ko ah ñun ñii xëy na jàng mais am na lu ñu mën a liggéey temps boobu temps ba ñaamee doole ah mais dara du suñu doom yi sax du dara kon yéen su ma comprendre li ngeen bokkoon ci péage yi faru leen woon ak nguur ak yooyu xëy na moom waraloon la xanaa ndax loolu la wante nag am na ñu ci nekkoon hmm. te ñun <laughs> saagawuñu xeexuñu dooluñu bal defuñu kenn dara ñun dañ doon wax li nga xam ne moom la ñu bëgg rek suñ la ko joxee baax na buñ la ko joxal ñu toog rek di jéem wutaat leneen. après après indépendance lan ngeen doon lan ngeen doon réclamer lan ngeen doon laaj. après indépendance hmm. ah lu ñu laaj lu dul pour ñu ñoo xam dimbali ñu jàppale ñu ndax mag lañu. Hmm. mag lañu xeex nañu ba sunu doole jeex na léegi ñu war ñoo nag dimbali ma loolu ñoo revendiqué te amuñu ko. indépendance ñëwee lépp li ngeen doon xeex après dañoon na mooy xëy na discrimination bi. ak yooyu. ak euh, yu sew yi ñuy daan def ak euh, sunu doom yi mettre dans des bonnes condition yooyu yëpp dañoon na wax dëgg yàlla dëgg yàlla Senghor defaroon na ba mu baax dëgg yàlla. waaw sous Senghor amu leen woon benn revendication. déedéet Ablaye Wade mi itam. ca dëgg-dëgg baax na Abdoulaye Wade daan nañ ko lii daal moo ñu ko defal moo ñu defal médaille bi amoon na tuuti reconnaissance ñun mais à part gisatuñu dara déggatuñu dara waaw. chaque année yéen a ngi commémorer. toujours 26 août 26 août bu jot ñu commémorer ko waaw ak au noon de Mbaye Jacques Diop waaw. bi fi Mbaye Jacques Diop nekkee daan na leen gunge. ci yenn moo daan def yu bari yëpp moo ko daan def. yëpp yëpp ñoo ko daan moo ko daan def. bu ñu toogee ba day reconnaître ba ñu ndax les femmes déportées sa grâce à Mbaye Jacques Diop waaw. bi génnee àdduna xëy na tam am na lu mu wàññi ci yéen. wàññi na ndax euh, ni ñu daan demee gënoon nu ko demee daal ñu ngi def ndax ba ngirandooy moo ko remplacé. waaw ah. ngirandooy mooy euh, papier. ngirandooy bu PS. waaw voilà moom moo moo jël record bi wante nag daal. baax na daal wax dëgg yàlla mu ngi def lu mu mën waaye daal mbay Jacques daal moo ñu gënoon a di moo gënoon nekk suñu dirigeant daal hmm. waaw léegi tey lan mooy seen situation yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon di xeex indépendance parce que gis nañu xëy na ku mel nii góor ñi sax am na ci peut-être ñoo xam ne xamuñu leen. Mhm. Euh, waaye yéen jigéen ñi bariwu leen te rôle bi ngeen def macha allah amul daal kenn ci yéen koo xam ne am na benn taxawaay bu mu am tey ñu mun a ne lii par carte yi ngeen doon yor. ñu tuddee leen porteur moo leen ko jox. amuñu ko amuñu ci benn jigéen amu ko man maa fi des. ak Seynabou Lokobar ak Maguette Diop waaye amuñu benn satisfaction ñu ngi doon demandé sax pour am pour kii recevoir ñu euh, jabari ab Macky Sall ñu te Marème Faye pour ñu recevoir ñu ndax en tant que jigéen ak jigéen te ñu ay ndeyam mm. dañu bëggoon a toog moom pour wax ko suñu rôle mm-hmm. wax ko li ñuy daj ci dëkk bi mais ba tey toppatoowuñu ko boo toogee tey di fàttaliku loolu lu mu lay def sama xol day metti mm. franchement parler. gis nañu bu ñu duggee photo souvenir yi. ak yooyu wane wane sa jaar jaar et sama xol day métti parce que léegi ñu génn ñoo xam ne télé fii su ba leen xoolee sama xol day jeex. ndax lan ndax li muy jeex moo di ñun li ñu def kooku defu ko. te ñun ñu ñu ñu palanke ñu génn ñoom seen nii nii nii nangam nangam nangam te ñun fu ñu jaar jaar. Mhm. wallaahi doom fi ñu jaar jaaruñu fa. ndax amul benn jigéenu jigéenu sénégalais bu taxaw fii taxaw naan damay takk sama ndigg taxaw ci feu rouge di jaay journal. Uh-huh. amul jigéen bu ko nangu. changer nekkinu jigéen ñi. musu kon musu duñ ko nangu sax dañ koy def honnêteté lañ koy jàpp defe ne loolu bassesse la si ñoom. Uh-huh. te ñun loolu dañ ko defoon sunu victoire sunu rëy lañ ko defoon. Uh-huh. dañu jaay journal terewul ñu ngi yor suñuy kër ànd ak sunu jëkkër yi dans dans le front di liggéey di ànd ak ñoom bu bu meeting am na meeting yu nekk ci meeting bu nekkoon fii. Euh, élection la élection bu métti bu amoon centenaire fii boobu ñun ñëpp ci la ñu demoon booba temps ci PA yi la woon para para Sénégal ba ñuy demee élection yooyu c'était au de Senghor ba ñu demee ñun dañuy defoon suñu lacrymogène dañu ñoom dañu am lacrymogène ah. ñun tam ñuy def cocktail molotov ah waaw nous les femmes. ngeen ko defaree woon. suñu cocktail molotov la ñu defaloon moo la ko waxee fii nii lañ ko defaree. man la nangam xa nangam ñu yóbbu suñu kees yëpp cocktail molotov laax ko ci suñu ruq toog di leen xaar bu ñu sànnee lacrymogène ñu sànn leen cocktail molotov loolu doon xeexanteeg ñoom ba mu yëf ya jeex am na nag mu jëg ñu def ay bomb reyel yoo xam ne am na ñu ci rey fii centenaire hmm. waaw yàgg na avant indépendance la woon wala après après l'indépendance la mooy élection bi Senghor defoon bu metti na boobu ñu yàgg di ah. sonn nañu de wax dëgg yàlla ñun ñii sonn nañu de. fi ngeen bëggoon jigéen yegg fa tey yegg na fa. waaw yegg na fa parce que jigéen ñu ngi leen noome ay ministre ñu nekk ay député yaa ngi dégg jigéen ñaa ngi ci bureau yi di liggéey de bonne situation ñoo leen doon ñaan c'est que ñun nag dañ ci amul amuñu faveur leen ci seen bopp gisuñu suñu bopp waaye sant nañu yàlla ndax suñu doom yaa ngi ci sant nañu du dëgg xëy na tey bu ngeen xeexul woon man mii du ma fi toog. yox mu ngi noonu loolu la mu ngi noonu. waaye tam bañ ca nekkee suñu diggi doole la ñu ne woon defan di ko defanteeg ñoom nag mu saf saab waaw daaw ñu xeex duñu saaga duñu def yu won yi déedéet dañ lay réclamer li nga xam ne loolu la bëgg mënuloo ko ñu seetaat beneen position. Cumbé Samba mu demoon a Cokaslawaki Maguette Diop demoon na à l'Union soviétique man je recevais des journaux yoo xam ne ah euh, les femmes les femmes de l'Union soviétique ñoo ma ko daan yónnee waaw am ak ñoom contact waaw. tey lan ngeen di xaar si si si si état ak surtout si population bi. état bi daal liñ ci xaar moo di ko président bi fi nekk mu jàppale sénégalais yi dindi naqaru sénégalais yi gaa mu ngi def waaye du lépp nga mën a def. wante nag mu gën a yokk effort am ñun jigéen ñu màgget ñi nga xam ne dañoo xeex a xeex a xeex ba tas mu gestuñu ndax ñu anam suñu wàllu yéen wéy na léegi j'ai quatre-vingt-deux ans hmm? di xeex ba màgget te mun loolu lii laa ci am c'est honte ba métti te on a tout fait tey Fass gi nga dëkk noo fiy dundee ndax xam nañu rôle bi nga xam ne joué nga ko. keroog yaa ngi ma naan xale bu ndaw boo ko waxee. mu indil sama kër ñëpp a ma xam. Fass gi depuis quarante cinq laa fi nekk jusqu'à présent fi laa màggee fi laa sëyee juree sama doom yi. Hmm. te bi ma juree sama doom yi itam yëpp ci maa ngi ci politique bi. Hmm. Fass yëpp xamoon nañu sama kër politique. réunion nocturne meeting. fi la daan am yëpp ci sama kër. ñëpp ma xam ci politique. waaw c'est que nag politique boobu ak bii du benn. foofu la ñuy ñëwee sax ci politique boobu ak bii tey boo ko doon méngale. Mhm. lu ci ñaaw lu ci baax loo xam ne mën nañ ko jàppee changement. changement bi ci am moo di ka ba ñu daan politique lépp lu ñu waroo dañu amoon l'école du parti. Mhm. école du parti nag manqué na ci politique léegi amatul. lan moo nekkoon rôle l'école du parti dañ daan éduquer ni ngay waxee avec le président ni ngay waxee avec ton successeur ni nga daan waxanteek ak sa sa adversaire yooyu yëpp yoo xam ne du am xeex du am xuloo du am wax yëpp fa lañ leen ko daan jàngale yëpp lañ fa lañ ñu ko daan jàngale yëpp wax wax ju rafet dox dox bu rafet sol sol gu rafet nag woo ñu fekk dañu daan. Ah, sol sax dañ ko daan wa dañ daan euh, sol sol gu waaw dañ daan sol sol gu yiw kay tubaarkàlla. Ah, nu ngeen daan solo jamono boobu. sol boobu temps coutume yi amoon nag temps boobu ñun temps ba ñu kii ay robe courte yi amoon fii moo amoon moom la sol boole ci cerceau cerceau yi kii ci biir. Hmm. moom lañ daan comme ni tubaab bi kii ci bale yi. waaw daan solo ba rafet. di temps bu ji ñëwee woon rek noonu lañ daan solo hmm. waaw. am nag éducation bu baax yor sunuy jëkkër yor sunuy doom suñu njaboot te ku ci ne yaa ngi sëy nag ñun ñëpp temps boobu ku ci dugg si parti rek sa jëkkër la si dugal hmm. ñun ñëpp suñu jëkkër yi la ñaan àndal amu ci kenn koo xam ne toog nga te sëyuloo waaw d'accord yéen ñëpp ay femmes à part école du parti lan moo amoon ci politique bu démb te tey amu ci wala loo xam ne am na tey te démb xëy na nekku ci yoon moo xam lu baax wala le contraire. waa li am li am tey ak li am démb ça se diffère. parce que li amoon démb ñun politique de yarute la ñu xamoon waaye li am léegi politique de réewande la réewande bi ça veut yow lu neex nga wax sa président lu la neex nga wax sa élu. lu la neex nga wax ki nga xam ne moo la représenté ngay gis ku la mag sax mën a jur sa yaay sax nga wax ko loo xam ne du dëgg ah bi liñ ciy def c'est pas normal loo gis sa rek la am famille waaye dañu def seen discours te kenn bañ koo xam ah yooyu yëpp éducation politique la bokk waaw nit daal lu muy def na ko def en secret dox nit ki respe xam li muy liggéey Macky Sall mii buñ ko bàyyi woon en respect jox ko respect total bañ a wax ay waxam lu mu wax ñu seet nañ koy waxee nu mu rafetee yëpp dina normal waaye bu kii tiiraay jëm fi kii tiiraay jëm fi dara du sotti. kon da gis ne wegguñu ko ni mu waree. déedéet Sénégal yi léegi wegguñu kenn ñun xamuñ man politique léegi dafa ma jaaxal damay dégg moo xam sax damay tiit parce que ñun éduqué wuñ ñu woon loolu. ñemewu leen ko woon. déedéet xalaatuñu ko xalaatuñu ko sax. dinañ xam ne suñu président déraillé na def na def na ni mais di dinañ xam fi ñuy waxtaaneek moom. ak di ñu koy waxee fi ngeen di yem. fi ñuy yem ba kenn du ñu kenn du ko xam te lu ñu bëgg xëy na dina am changement waaw waaye façon yi franchement ñun yare wuñu woon loolu dañu amoon école du parti. et ci politique bi léegi nag manque l' école du parti. d' accord d' boo amoon looy looy digal ndaw yi politique surtout jigéen ñi lan nga leen di wax. jigéen ñi daal li ma leen digal moo di. nañu jéem a bëgg seen réew bu bëgg sa réew bëgg nga sa bopp respecté mag respecté xale éduqué seen doom yi surtout li seen jigéen góor du toog si kër jigéen mooy des ci kër surtout jigéen éduqué doomam famille am foyer am yaay dégg foo war a dem nga dem fa te itam di bàyyi politique gu tàccu ah mais jigéen évolué na si côté boobu. am na am na ñu ko desee ba léegi. Hmm. am na am na ñoo xam ne xamuñu qu'est-ce que c'est le parti am na jigéen ñoo xam xamuñu parti li ñu xam parti mooy dem président wax na rek li mu wax sa yow sant doole li mu wax naa tàccu rek am na ci jigéen mais loolu man jigéen ñoo dama leen a contre dama leen a contre booy politique da ngay da ngay toog attentivement nga. dégg day am lu tax ngay xeex. la tax nga jóg yaa tax a jóg nga déglu ko boo ci foree morso boo xaw a wax eh, bind soo demee nga noté ko soo demee nga seet ce que tu dois faire wala li nga war a xalaat ci sa xol waaye tàccu man j'aime pas ça bëgguma lu jóg rek nga tàccu da ngay réfléchir avant de avant d'agir waaw. kon tey daal jigéen ñi jàpp nga ne seen rôle. bi ñu war a jouer des na. des na des na moo di am na nag ñoo xam ne nag mur dañu en politique mais am na ñu ko des ñoo xam ne dese kii ñu ko parce que yow da ngay nekk dans un parti par exemple yow nga nekk euh, parti Macky Sall mooy nakaati euh, kii parti Macky Sall kii nekk beneen parti boo xam ne opposition la ah bu ñu indee par exemple dara di ko séddale pour toutes les femmes ah, mais jigéen ñi duñu ko def dañuy seet ki nga xam ne mu bokk si ñoom ki nga xam ne bokkul si ñoom moom bokkul or que c'est pour tout bu ñu nee jigéen Sénégal c'est pour toutes les femmes Sénégal amul distinction ñun loolu lañu ñu xamoon waaye doo ne kii elle est bleue celle-là elle su ma demee la ku verte gi laa jox ku bleue ki ma ko jox yooyu yoon sànni loolu d'accord yooyu ça n'existe pas d'accord ce que ñu ngi fiy denk ministère de la femme jéem ngeen a jug dem si ñoom pour daal ñu xam ne yéen ñi vous faites partie wala vous êtes les pionnières. demuñu fa ndax ubbi lu ñu bunt bi bu fi Mbaye Jacques Diop doon dund tey moom dina ko def mais Mbaye Jacques Diop dundul kan moo ñuy piloté man su ma demoon tey devant devant la porte dañ may fuut aale ne ma looy wut fii looy taxaw fi hmm? xamuñu sax bureau xamuñu fu mu ne. tey booy togg ak say sët ak wala say doom di leen nettali sa jaax-jaax nu muy demee. ñoom ñoo ma koy jëkk di wax fii sax ñoom xale yi. ñoo ma jëkk di wax fii parce que ay ay studio Fall invité woon na ma tele ma dem yaa bee doo tutu même bu yàggul Fatou saw saar mi. waaw bi ñu doon def fële. Mhm. Euh, université j'étais là yooyu yëpp xale yi xam nañ ko xëy dañ dañ may ñaawa sax dañu toog ba ne eh yaay yéen nag te yéen nag daa ko yow bàyyi leen yéen ngi yéen daj ci yéen yéen te dara ah mais man leen doom addinaa mel noonu addinaa mm-hmm. war a mel noonu lu sotti am borom mm-hmm. loolu la waaye ñun fi ñu jaar billaahi doom jigéen jaaru fa jigéen jaaru fa wot naa sama doom bii gaañut falan quatrième bi deux jours hmm? waaw commissariat commissariat quatrième bi deux jours ndax lan lu taxoon ñu teel meeting buñ ñu fekkoon def meeting dañu bool ñun ñëpp yóbbu ma wax jël parole wax sama allocution ba mu jeex ñu gaare buntu bi dana ay ca ak doom ji ak doom maa ngi fa boot def nañu fii ak Majmour Diop fii ci sama kër gi benn benn tee débat ci kër gi kër gi feex del tubaarkàlla mais y avait la police ba pare ñun ñëpp dañu dugal cooto bi yóbbu hmm? waaw ñun police safuñu woon de mu jëgi gis nga am na basang yoo xam ne ay feuilles de raffia lañ ko ràbbe woon hmm. ñun dañ daan jël basang gi dañ daan def ñun ñëpp ku ci nekk da nga jënd sa basang bokk te xam ne yow foog police ngay fanaan doo ñëw sa kër. xeetu mer gàddu yooyu. ni foo jëm yóbbaale. bu ndaw la woon bu tuuti. <laughs> mu ngeen demee lal ko tëdd. waaw dañu xam ne xel na ñun de ñu ngi dem meeting mais du ñu ñibbisi dañu yóbbu bu ñu demee ñi teg ñu foofu jox ñu mbaaju al mbaaju euh, militaire yu ñagas yooyu. Mm-hmm. temps temps boobu il était froid. Mm-hmm. ñu lañ moom ñu daan sa sànni foofu ñu fanaan ba bët seet. ñu taxaw xool ñu ñu xool ñu wax ñu bu fee partir ñu dem. ah xëy na est li ngeen doon xam ne dañ leen xëy bàyyi leen moo tax ngeen ñeme woon ko noonu. ñun déedéet dañu ko def ba mu sax ci sunu xol. dañu sonaloon ba mu yéen li ngeen jug moom ngeen doon topp rek la ñuy topp ba ñu si woon dara nag lu ñu dem mooy condition wu jigéen changé changement jigéen ñi la jigéen ñi am évolution la jigéen ñi am euh, liggéey bu baax nañu considérer les femmes teg leen dans les normes ñun yooyu lañ doon xeex waaw jigéen ñi daal moo ñu taxoon a jóg ak sunu jëkkër it am solde yu baax loolu ñu taxoon a jóg. parité bi ngeen doon xeex ba mu Mamadou Dia convoqué leen parité boobu tey am na. am na mais est-ce que yaakaar nga ne jigéen ñi bay ñu ngi bay seen waar. Ah, ci ci yi ñu leen di jox ak yooyu. ah gisuma ko de parce que keroog fi bi ñu naan ba parité jigéen ñi man leen di ñun soo déggee ñu wax parité c'était dans le au sein du travail. Ah, au sein du travail mais bokkul ak parit ci kër ga. au sein du travail lu góor war a am ci liggéey ba yow ku jigéen war nga ko am. Euh, lépp loo xam ne satisfaction góor la ak jigéen te au sein du travail yow jigéen ji war nga ko am. Hmm. indemnité jigéen ñi ci seen accouchement yooyu yëpp jigéen da ko war a am ñun yooyu yëpp lañu doon xeex waaye nag du sa du parité kër gi de jigéen mun la fexe ba yilif góor hmm. waaw toujours mooy doon sa kilifa. Mhm. mais nag au sein du service loolu lañ doon revendiqué waaye ñun sentiruñ ci dara. mais jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu. ñu ngi jigéen député booy xool jigéen député yi ah, tey. ndax sa xol dina sedd xol day sedd. Mm. billaahi ak li ma la juree bu ma gisee jigéen ñu jóg taxaw dafay mel ni glace nga def sama xol ndax dafay mel ni man maa nekk à sa place. mel ni man maa nekk à sa may neex mm. ma ne lii. ñu lii leen ñoon ñaan yàlla te la yàlla def na ko mais ba ñuy ñaan yàlla euh, sëriñ bu ñaanee ñaan ñaan ba pare ba ñaan taalibe ba pare dana am àllarba mm. lu bon bon sax ñu woo ñu xam ñu bu ñu deful soxlu ñu deful dara mais na ñu reconnaître rek jeex na. Ah, jigéen ñi jigéen ñi delloo leen njukkal. surtout ah. xam na yéen xeex xeex bi. Hmm. ana aram jéen du muy lu xew te ñu defal ko hommage ak lu ne ñu kii ko ñun li ñuy def aram jéen daf ko def. yéen ko ci jiitu. fuuf ñun au temps de Ndumbe lañ tase. tase wu ñoo ko anam jéen au temps de lañ tase di defanteeg Ndumbe Ndiaye mm-hmm. au temps de Senghor aram jéen ab ab Abdou Diouf fi indi mm-hmm. au temps de Abdou Diouf ak yooyu ci lañ doon def seen yooyu mm-hmm. ah mais anamo ñoom seen politique politique seen seen allocution maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di sargal maa leen di mais ñoo xamuñu woon loolu Hmm, hmm. yéen nu ngeen daan def. ñun bu ñu boo ñu jëlee parole dañu wax li nga xam ne moom la réew mi laaj moom la réew mi soxla ñun loolu la ñu bëgg yaa ngi dégg wax ba pare suñu paree nag. waaye leen woon si ay détails. déedéet ñëw rek dem à l'essentiel déedéet du ñu neexal kenn ñoo naan gërëm naa leen sant naa leen maa ngi leen nuyu jusqu'à présent mënumaa taxaw ci meeting naan maa ngi leen di sant dem mënuma ko. xamoo ko déedéet. soo paree nag du tere bu ñu demee nañ def suñu autocritique seet li nga wax baax na wala baaxul. le lendemain booy wax di nga rectifier. nga wax yéen leen a jóg moom ngeen di wax. Ah, jeex na tàkk. du ngeen sant du ngeen. déedéet déedéet. ñun xamuñu yooyu mais léegi nag moom silvissé la daal politique bu silvissé la léegi. <laughs> waa xëy na jamono moo dox aussi ba yegg. Ah, foofu moo yegg si foofu léegi. Hmm. wante nag ca dëgg dëgg dëgg ah, amatuñu doole de wax dëgg yàlla ay ba ñuy am doole de nekkoon nañu suñu place bu baax baax. Cheikh Tidiane gaajo de xam na ko. Mm. Cheikh Tidiane Gadio panaf te yoroon affaire panaf panafricanisme. Mm. xam na ko de moom félicité nañu am na un jour sax invité na ma waaw dëgg yàlla. Mm. waaw ñooñu ah xam nañu suñu rôle de waaye bu ñu sañoon ah góor gi xam ñu bu baax jabar ji xam na bu baax waaye nu ngi toog rek xaar yàlla. lan ngeen jàpp ne tey war nañ leen ko mën a defal ngir delloo leen njukkal li ñu leen ameel. ah loolu ça dépend ci ñoom. ça dépend ci ñoom. ndax ñun daal bu tey boo sañoon yow lan lan la ñu lay defal yow Adja Awa Gaye ngir xeex bi nga xeex lan ngay xaar ci ñoom lu mu tuti tuti nga jàpp ni lii mënta ñàkk. man Adja Awa mii di wax tamay waxal samay morom yoo ci nekk ndooloon. Mm. te ba tey am na ñu fi nekk. bariwuñu ñett rek ñetti ñett ñetti jigéen dafa des. mais yooyu yomb na. pour woo leen récompense leen yomb na. ñun daal bay ñu daal lu ñu defar rek baax na amuñu dara nu ngi ne sama kër gaa ngi nii jaboot naa benn doom rek liggéey. ñu kenn liggéey. bu hmm? ma moom dong moo yore gannaaw yàlla ñan sama nelaw na waaw léegi ñu def lu ñu defar rek baax na. ak li ngeen defal Sénégal yëpp. yëpp fay ñuy dara fay ñuy dara. fayu ñu dara dara la ñu fayu ma bàyyi la xëy na nga tëj ak loo xam ne mi ngi sa xol nga bugg ko wax sénégalais yi bugg ko wax jigéen ñi bugg ko wax ndaw ñi euh, nga tëjee ko waxtaan bi. Ah, li may bëgg a wax daal di ko tëje moo di xale yu xale jigéen yi nañu am éducation xale yu jigéen yi nañu xam seen bopp jigéen du yàpp lu boppam liggéey day am dignité personnel am seen ndey yi nga xam ne ñoo leen jur nañuy éduquer seen doom yi bu baax jàppale leen bu baax les femmes seen nag ñi fi nekk ak les membres ñu bokk ci politique bi les élus ak ñëpp ñu maa ngi leen di wax ne ne nañ leen ñu fàttaliku ñun ñu doon xeex démb ak tey dañu ñu fàtte ñu faale soxlawuñu dara ñaanuñu kenn de ñaanuñu kenn soxlawuñu kenn waaye fàttaliku bi ak yëg bi dafa am dafa am solo loolu rek laa doon wax te di la gërëm nag di la sant doom yow mi fi yàlla indi waa te lii nga jàll jàllaleel ñu ko bu baax mm-hmm. sonn na nu nag jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Adja Awa Gaye moo jiite jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax porteuse de pancarte doon ànd ak maître Mbaye Jacques Diop doon xeex indépendance ñu doon ñëw ci jaar-jaaram wala seen jaar-jaar ah. ni ñu doon defee politique euh, démb ak tey ni politique di doxee muy jigéen yu jàmbaar yoo xam ne bay nañu seen waar bu baax a baax ci Sénégal te xëy na tey ñu bari umpale leen wax na ko léegi ñi fi jot des bari ñu lay gërëm en tout cas professeur euh, Fatou gërëm bu baax xëy na moom moo waral sama xamante ak yow moom moo dox aussi suñu suñu diggante ba ñu mun a sekk waxtaan incha allah du ñàkk ñu sekk yeneen waxtaan ndax yéen waxtaan ak yéen tout le temps dafay am solo euh, ci réew mi ñu ngi lay gërëm di gërëm itam ñi doon déglu émission bi dem ak tay la woon ci réew mi FM di gërëm Jaawo Jàllo mi nekkoon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi ñu joxante dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog